jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi almisbaax ñaanal ko tawfiix sutura ak ciraanga ak poche def dara niñ ko baax ju defee fajaru dimaas mooy ànd ak yéen ci min kunoo si sunna min kunoo si sunna dafa ñëwoon ay bis gi nu génn ci joxe aw ñam ak wàccuwaay bu am solo bi mu am ci diine ji togg aw ñam joxe mbaa jox nit lu ko suur mbaa dimbali nit ci dépense am mbaa mbaa mbaa lu ama am solo la joxe aw ñam tabaarakallaahu ci aju ciw ñam lépp nag ndaw ko ndaay xam nañ ci dara tey tomb bi ñuy ñëw mbokk yi ci min ku no si sunna dafa jëm ci nuyoo dafa jëm ci nuyoo nuyoo mooy baat yi nga xam ne mooy ubbi diggante nit ak nit introduire kenn ki ba mën a wax ak kenn ki baat yooyu mooy liy ubbi diggante relation yi relation boo gis ci àdduna si nuyoo moo koy tijji ñàkk nuyoo moo koy tëj moo tax alayhi salaatu salaam bëgg ñuy nuyoonte seytaane bañ ñuy nuyoonte seytaane li ko arrangé mooy ñu bañ a nuyoonte yonent bi li ko arrangé mooy ñu nuyoo ñu nuyoonte moo tax ñoom ñaar duñ bokk luñ fu ñu xëy mukk déedéet yonent bi ak seytaane duñ bokk fu ñu xëy mukk moo tax ku leen bëgg xëyal ñoom ñaar am problème da ngay xëyal yonent bi maa ngi xëyal seytaane rek yàlla tere ñuy xëyal seytaane nuyoo sallallahu alayhi wa sallam da ko jële ci sunu borom subhaanahu wa taala taxiyatan mubaaraka min indillaahi waaw tayiba mooy nuyoo waaye seytaane ba sañoon kenn du nuyoo moo tax léeg-léeg ma lay indil ay ñàkk solo diw daf laa tudd barab sàngam bul ko nuyooti diw daf laa mere bul ko nuyooti ba mu jàgg yow tam doo nuyu kenn léegi nag tëj nga bunt bi la yonent bu ubbiloon pour sa diggante ak nit ñi am relation yu baax yow tëj nga bunt booba waaw bunt boobu tëj nga ko buñ ko tëjee nag léegi seetaane moom jël nga ko ndax fexe na ba doo nuyoo léeg-léeg ma gis ci Dakar gi di ay wujj yu ma dégg ñu ne duñ nuyoonte wujj yu du nuy jikkale kee du nuy jikki seen jëkkër nekk ci diggante bi jongale yàlla na ko yàlla yërëm <laughs> rida haasi yahiju bi saqti haadi itaabun daimun fi leylatayni ndeysaan boroom ñaari jabar ya borom ñaari jabar ya <laughs> tubaarkàlla nee na guddi gum fanaan rek waaw ña ngi koy woŋ ña ngay wax ca kële bu nee na bu aawo kontaanee kontaanteel aawo mooy merloo ñaareel bu ñaareel kontaanee kontaanteel ñaareel mooy merloo aawo mu ne ko yow de sonn nga xanaa xamu ne ku takk benn jabar dugg nga musiba ku ñaareel musiba dugg na la ku ñetteel nag génn nga ci musiba ku ñeenteel musiba génn na ci yow mu ne ma kon kay lii tax mu ne ko loolu dong la nag <laughs> waaw barkal dégg naa ne am na ñoo xam ne bu ma nee ñaareel bala maa daaneel ñu zappe waaw <laughs> parce que man de mosumaa gis lii <clears throat> alaa kulli xaal ñaari nit bokk jënd jëkkër duñ nuyonte ñaari nit bokk benn entreprise du ñu nuyoonte ñaari nit bokk benn société du ñu nuyoonte ñaari nit bokk benn organe de presse du ñu nuyoonte dem na ba ñaari nit bokk jàkk du ñu nuyoonte dem na ba ñaari nit bokk jenn jumaa du ñu nuyoonte ma ne dem na ba ñaari bokk benn daayira du ñu nuyoonte dem na ba ñaari nit ñu bokk benn parti du ñu nuyoonte mu yéen lii nag dem ba ñaari nit bokk ndey ak baay du ñu nuyonte mm-hmm. du ñu nuyoonte waaw seetetet donc nuyoo du lu simple nuyoo nag mooy asalaamualeykum looloy nuyoo asalaamualeykum loolu mooy nuyoo yal na ngeen am jàmm allahu akbar loolu da ñaal nit ki boo ko fekkee mu toog waaw fekk soxna Ndey Faatu Jàllo Albert Roy nga ne ko asalaamualeykum waaw léegi mooy yàlla na ngeen am jàmm yow yaa sa mbokk yépp ak waa Albert Roy gépp waaw loolu mooy nuyoo waaye ñun fi ne fa la bàyyi nuyoo boobu di jël ay baat ñenn ña naan jàmbaal doon ñenn ña naan njokko njal waaw ñenn ña naan bonjour ñenn ña naan ñenn ñu naan ni haaw ñenn ñu naan buongiorno lu nekk laanaam bàyyi fa nuyoo yële jël suñu yëf bopp bu dee xale yi nag ña nga naan ay savaak na nga def ak naka yeeg kuul loolu ne nañ jaasal <laughs> jalaali loolu lépp amul fuñ koy marqué amul barem buñ koy bind déedéet li ñuy bind li ko daal mooy asalaamualeykum daañ ko bind mu nekk tuyaaba waaw mbokk yi nuyoo lu am solo la mooy ubbi bunt yi fi ne boo duggee cib super mbaa cib car mbaa njaga njaay mbaa Dakar dim dikk wala Sénégal dim dikk wala cib train wala cib taxi nga accident ni asalaamualeykum ah mbooloo mi léeg-léeg sax am ko lu dul fay nag waaye kala fay bu ngeen jàmmantee rek buntu ubbeeku Oustaz Alioune Guèye ma woon ca cede ba rahmatullahi alayhi wa radi anhu da daan faral di yor tàngal ci poosam waaw bu ne assalaamu aleykum nga ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullah ustaas na nga def nangam nangam mu yëkkati benn jox la nga xolli cheikh mu xolli benn cheikh waxtaan wa tàmbali mu tudd ko miftaawul xal bi waaw miftaawul kalaam wala miftaawul xal bi ngeen tàmbalee waxtaan kon nuyoo lu am solo la waaye sunu penc mi dañoo defe ne patron bu ñëwee ci bureau bi wartu nuyoo day romb gaa yi gaa yi jóg naan koy patron way monsieur eh, déedéet déedéet du noonu nuyoo daal moom amul maala mag amul maala raw amul maala nangam nuyoo dafa war a am suñu diggante nanu dem ca annabil Moustapha saxaaba yi jëlal ñu ca eh, trésor ba ca moom dencal ñu ko trésor ñu di ko jëfandikoo ba jëm la xiyaam dafa wax ne laa tadxulul jannata xatta tu'minu loolooy lu njëkk li kenn ci yéen du dugg aljanna te gëmut ah waaw imaan mooy tax dugg aljanna waaw laa tadxulul jannata xatta tu'minu balaa kenn dugg aljanna daa am imaan waaw moom ngay dégg yaa ayatuha nafsul mutmainna yéen ñi nga xam ne am ngeen imaan léegi yaa ayatuha nafsul mutmainna yéen ñi nga xam ne léegi am ngeen imaan waaw irjii ila rabbiki ñibbisil ila rabbiki mardiya mu gërëm la nga gërëm ko fa fadxuli fi ibaad yi dugal ci sama jaam ñi nga xam ne ñoom tam am nañ imaan wa duxuli jannati nga dugg aljanna bakkan ba lay waxal moo tax mu jigéenal ko kon yonent bi nee na kenn du dugg aljanna te gëmoo ñu ne ko waaw mu ne walan wala tuminu xatta taxaabu munu leen gëm yàlla bu ngeen bëggantewut allahu akbar munu leen gëm yàlla bu ngeen bëggantewut mun leen dugg aljanna te gëmu leen kon bëggante mooy tax ñu gëm yàlla gëm yàlla mooy tax ñu dugg aljanna ah waaw bu ngeen bëggantewut du ngeen dugg aljanna mu yën nun kon fu ñu jëm ni ñu bañantee léeg-léeg nit xool nit ne ko ni ma la bañe léeg-léeg nit ne maa bañ nit léeg-léeg nit di xool nit di gaññ te te te léeg-léeg nit wax nit lu mel ni xeme lu tax ñi bañante ndekk buñ bañantee duñ gëm buñ gëmut duñ dugg àjjana waaw ah ñun ñëpp nu jaaxle nag wër yonent bi ñun ñëpp nu jaaxle wër ko ne cuub mu ne awala adullukum ala cheyin isaa faaltumuuhu taxaababtum ndax bëgg ngeen ma digal leen loo xam ne bu ngeen ko defee bëggante waaw kaay leen ma digal leen loo xam ne bu ngeen ko defee rek bëggante yonent bi bëgg na nu bëggante ndax buñ bëggantee gëm yàlla buñ gëmee yàlla dugg aljanna moom nag kon dafay def lépp ndax nu bëggante ndax buñ bëggantee gëm bu nu gëmee duggal jànn mu ne ndax bëggu ma tegtal leen loo xam ne bu ngeen ko defee bëggante ah loolu de jar naa déglu man mii di wax ak yéen ñuy déglu loo xam ne buñ ko defee bëggante buñ bëggantee gëm buñ gëmee dugg aljanna yoon waa ngoog mooy yonent bi lan mooy li nga xam ne buñ ko defee bëggante waaw lan la mu ne afsu salaam bay na ko dee leen nuyoonte allahu akbar dee leen nuyoonte bu ngeen dee nuyoonte lee ngeen bëggante dangay romb ñu ne ko asalaamualeykum wa aleykum salaam nga jaaraat fa asalaamualeykum aleykum salaam nga jaaraat fa asalaamualeykum wa aleykum salaam mu ne waaw noo sant nga ne ko ndaw mu ne haa ne waaw waaye yow kay lii tax nga baax man giise laa sant mu ne Guissé ngeen tàmbali waxtaan woowu dox seen diggante mu daal di tàmbalee jur bëggante waaw mu daal di jur bëggante ndax ki nga ne asalaamualeykum boo ko bëggutoon doone ko yàlla na nga am jàmm yaak say njaboot ak say bokk kon ndekete nuyoonte mbokk yi mooy tax a bëggante bëggante mooy tax a gëm gëm mooy tax a dugg aljanna waaw waaye noonu fi nekk nii prétexte bu nekk ñi dana ko def ba du la nuyu léeg nga ñëw ci mbooloo di jox loxo ba àgg ci kenn jox ko loxo mu la téyel sa loxo allahu akbar ndaw bàkkaar bu rëy waaw téyel sa loxo loolu nag entreprise yi société yi lépp loolu tax daanaka duxul waaw ñàkk jubo gi ñàkk nuyoonte gi ku romb sa moroom doo ko nuyu rek tabarkàlla asalaamualeykum ji na jolli ci barab yi entreprise ak société yeeg yëpp ndax mooy tax nu bëggante te kat société boo xam ne ñi ci nekk dañoo bëggante yëf ya dox day yomb waaye société wala entreprise boo xam ne ñi ci nekk kenn bëggul sa morom du dox ndax lu waaye defe rek ku la mën a fakastal fakastal la nga daanu mbàkk mbokk yi maa ngi ci min ku nuy si sunna ni ñu ko baax ju defi dimanche bu jot eh, tabaarakallahu toll ci tomb am solo mooy tomb bu nuyoo benn hadisu ngoog ñu jële ko ca trésor ba min kunoo si sunna hadisu ñaareel bi ci bindub tey bi yaa ayyuhan naas yaa ayyuhan naas yonent moo wax ee yéen nit ñi yéen nit ñi ñiy déglu jamono ji euh, Sud FM <laughs> ak man mii di wax yaa ayyuhan naas ñu ne waaw mu ne afshu salaam wa atimu taam wa sallu wa silul arxam wa sallu wa naasu niyaam tadxulul jannata bi salaam ah waaw waaw nee nit ñi ñun ñëpp nu wuyu ko ñun ñëpp nu wuyu mu ne dee leen nuyoonte dee leen joxante nuyoo de leen tasaare nuyoo na ñëpp jot ci nuyoo bi ki nga xam ki nga xamut góor ak jigéen nuyoo nuyoo baat waxuma nag joxe loxo geeg yooyu waaye nuyoo bi ci boppam nuyul ñëpp koo xam ak koo xamut waaw nuyul ñëpp ab su salaam na nuyoo bi tasaaroo na àgg ci ñëpp xale yeeg mag ñeeg ndaw ñeeg góor ñeeg jigéen ñi del nuyu ñëpp del wax ñëpp asalaamualeykum laa bëgg a wax bu dee joxe loxo am na am na fu ñu ko rëdd ne bul jox ñii loxo ñii nag mën nga leen a jox loxo ab suuf salaam dégg ñu ne ko waaw daal di tàmbali ku romb sa morom ne ko asalaamualeykum waaw bàyyi xaadima jaxate kala allazi alallahi tawakkala ca kër ma kala moo waxoon ca xasidaam nga akrahu qawman uhayyihim bi bonjour mu ne su boowul bonjour ak ñu koy nuyoon nuyoontee bëgguma leen <laughs> bàyyi xaalis mu ne bëggu leen nit ñoo xam ne ku leen di nuyoo doo wax asalaamaaleykum xanaa bonjour mun naa am ah, ne bàyyi xaalis mu ne bëgguma leen bàyyi xaalis ma jaxante kala àll si àllaay tawakkala ca kër ma kala mu ne kon dee leen nuyoo waat imu taam dee leen joxew ñam allahu akbar dee leen joxew ñam te mooy suñ bind bi weesu ci mun ko nooy su sunna joxew ñam de leen togg mu doy ngeen di yàkkale dee leen yakkale yàkkale poos de leen jàpp li ñu amul lu ñu lekk kuy joxe lekk bu ëllëgee yàlla jox la nga lekk kuy xañe lekk bu ëllëgee du la jox nga lekk jàngaleen araayta araayta les yuka zibbi diin ndax bëgg nga xam koo xam ne gëmul bis ñu ah bëgg nañ koo xam kay mu ne fa zalika allazi yad'u yatim wala yaxuddu ala taami miskin ñaari sikk la njëkk am ñaari sikk la njëkk am mooy du jox jirim cëram du jox miskin cëram waaw du jox jirim cëram du jox miskin cëram sikk soosu la waa ji am ñaari sikk aw yadul yatim wala yaxudu ala taamil miskin te ñaar ñoo ñaar ñu néew doole lañ waaw yatim ak miskin waaye sunu borom na kii du leen du jox miskin aw ñam waaw wala yaxudu ala taami al miskin ala taami al miskin ñamu kon du joxew ñam nit ñi léeg-léeg léeg bala ñoo joxew ñam dañoo añ ba mu des mbaa ñu reer ba mu des ñu fab maccaat maa xuuñ la boole ca jaxase jox la ne la am yàlla jox la ne la am yàlla jox la loolu de ak tooñ yàlla la ndax yàlla am na leneen lu may ceeb bu sedd ceeb bu jaxasu xuuñ ak ñoom seen yooyu ba noppi na nga ne am yàlla jox la man de ba ma gën a ko joxe waxee dama ne ko yàllaa ma ko jox loolu laa ko laaj ba ma gën a ko joxee ganaar gu feebar ba mu feebar ak léegi mat ay at mu ne ma am yàlla jox la ma ne ma xool ko ba mu xool ma wax ko ci ton bu ton bu kii ndeysaan ma ne ko yàllaa ma ko jox ndeysaan mu ne ma sama yàlla la ko jox ma ne ko waaw da naan am sama yaay jox la <laughs> am sama yaay jox la man lu may doyee ganaar gu feebar gi nga xam ne tabarkàlla ku ko lekk ba muy tul daal di dugg ci feebar yi dama jox ko kële ci bopp koñ ba mu ne ma dañ daa waxoon ne naa ko jox eh, daal di wax ab baat ma ne ko ah, kii de bëggul ganaar gi moom ñeel sa yaay bugguma ganaar gi ginnaaw yàlla joxuma ko daal moom moo ma ko jox na wut lu gën lii jox ma <laughs> coow na mbokk yi tasaare leen nuyoo tey joxe aw ñam ñu ne waaw mu ne tey jokk bokk ah waaw tey jokk bokk yontu baa ngi lim lu am solo lépp war a ànd ak nuyoo waaw ndax nuyoo mooy tax nga mën loolu bu fekkee yaa ngi nuyoonte mën na laa ubbil buntub nga xam ba xam kii mi ngi lekkam lekkut am na dépense am amut ca jàmmante gaak yooyu ca jàmmante gaak nga koy xamee ba waa ji duggee ci oto jii li mbay ba rahmatullahi aley waaw commencé jàmmante na ngeen def yéen fu ngeen bàyyi ko ana waa Louga fu ngeen jëm nii man de dama lii laay dox ba wax ko li muy dox dama am ngénte te tey la dimanche te ngénte li talaata la ma bëgg a dem nag sama kër bàjjan ñoom suma kër ñoom diw ndax ma am fa dara lu ma xottali soxna si lu ma jëndi xar wax wax wax jàmmante gi rek ubbi bunt boobu ndeysaan waaw alaaji jilli mbay daal di koy lemal enveloppe bu genn wàll million ca jamono jooja waa ji wàcc ba sori chauffeur ba dab ko jox ko ko mu ubbi enveloppe bi rek xool ko rek gis takk yi ndeysaan mu dab safar bu téye ci mbubb ma ne ko kii kum doon mu ne ko alaaji jili mbay mu tegal ko ca sallallahu alayhi wa sallam mu néew waaye loolu loolu dafa am solo mooy nit ñi lekkut nga fexe bañ lekk waaw am na solo lool waaye ñetteel ba mooy jokkuk bokk jokkuk bokk jokkuk bokk moo tax hadis ba ne taallamu min ansaabikum maa tasiluna bi arxamakum waaw ko ngeen jàng ngeen jàng seenu askan ndax ngeen mën a jokk ak bokk suñu weju suñu wenn waajur nekkoon ca Tuubaa nekk ca gaar bu ndaw ñu ko daan tuddee góor gi ab du Cax waaw yàlla ko yàlla yërëm boo toogaan moom nekk mu ne la noo sant nga ne sàll fuy Chine dëkk nga ne càlle gan ci càlle yi nga daan ne càlleeg càlleeg kayal ak mbakke Bawal waaw rek foofu nga yem mu ne la bàllaay sa maam walla baaba <laughs> waaye góor googu mën na la ko jëlal ba tabarkàlla sa xol sedd lool wala wala say rongoñ turu waaw buur gi Abdou Cax yal na ko yàlla yërëm mook sama mbokk ma sëñ xaban géey waaw yal na yàlla yërëm leen ay àndandoo lañ woon nekkoon ca Touba ndeysaan hmm? mu ngoog mu nekkoon wasilul arham jokk leenu bokk wasallu wannaasu niyaam bu nit ñiy nelaw bu nit ñiy nelaw wàññi leen seeni nelaw yéen te julli guddi kenn defu ko ndax ngir nelaw rek déedéet guddi kenn defu ko ngir nelaw guddi jëriñut nelaw dong waaye jëriñu dóori pooj guddi jëriñu dóori pooj guddi jëriñul nii blanche guddi jëriñul nit ñi tëdd nga jóg di jël yëfi jaambur yi guddi jëriñul agression guddi daa am leneen lu mu jariñ jëriñ inna naashi'ata leyl hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila yàlla nee na liñ koy defal ci guddi ah moo ëpp tuyaaba liñ koy defal ci bëccëg ndax guddi ñuy liggéey guddi ba taxi yi nekk taxi Sénégal ndeysaan yàlla na yàlla yërëm taxi yi ba taxi yi nekk taxi nga xam ne da ngay yëkkati sa loxo rek bu taxi bi ñëw nga séen ko muy ñëw danga xam nit ak caag nit nekku ca ndax làmp bi doon nekk ci kaw bu takkee verte mooy taxi bi amul kenn bu takkee ruus mooy taxi bi daa am kenn léegi nag taxi bi day ñëw ba taxaw ci sa yeel nga door a xam ndax am na ak amut te loolu ndeysaan at mu jot muy gën di garaaw yi daa gaara taxi ba arrêté ko mu taxaw mu ne ko foo jëm mu ne ko géejawaay nogay ne ko waay kër imaam Njaga Sàll borom taximaan mu ne ko yëgal mu ne ko ah ñaata ñaata ndeysaan waxaale waxaale taxi ndeysaan fii rek laa ko gis waaw ah, fii rek laa ko gis Europe boo demee wala Amérique mbaa dëkk yooyu da ngay arrêté taxi mu taxaw nga yëg mu tëral contour ngeen dem mu jax tàkk waaye ndogoy arrêté taxi bi foo jëm ndogoy ne ko géejawaay fan ci géejawaay mu ne ko marché bu bees ne ko yéegal ndogoy ne ko ñaata mu ne ko trois mille ndogoy ne ko <laughs> bëgg nga trois cent laay lay lilaa taxi bi añul añul keroog ndax mer waaw ndogoy fay ko trois cent Grand Dakar ak géejawaay trois cent tag borom taxi ba nga ko jëppee jëppee jëppi waaye nogay moom yoonam nekku ci defe nga ne trois <coughs> course bu trois cent course bu trois te nogay ngi ñu baree ngi mel ni moom ci penc bi yonti mu ne kon ngeen naafila bu guddee su ngeen defee yii nuyoo joxew ñam jokkook bokk naafila tadxulul jannata bi salaam bu ngeen di dugg aljanna du ngeen am benn jafeñ-jafeñ yéen a koy dugg bi salaam waaw yàlla ñu fa dugg ngeen dugg fi te ñu fekk fa yaayi Maodo ak seen for yëkk jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen i kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar toi firiñ fàncal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor yii wala suñu sponsor mii C3S yàlla yàlla defar seen i mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara gannaaw da leen ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha mastatatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu